jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci euh, rajo réew mi euh, FM ñu leen di nuyu bu baax a baax di leen di ziar dellu am mbégte mbokk yi dellu siwaat ci seen émission petit métier comme li nga xam ne moom lañ ko baaxoo di ànd ak yéen samedi bu jot bu 13h30 jotee jàpp 14 ngeen di si ànd ak Abdou moom Seck du Diaw Diallo mu nekk ci wàllu machine bi tey nag mbokk ñu invité Ansoumana Badji comme ni nga xam ne nag moom lañ ko baaxoo di invité fii ndax liñ ko fi invité euh, bëri na moom nag moom moo jiite euh, union nationale des associations de moto mototaxi du Sénégal maanaam mbootaay gi nga xam ne moo ëmb mbooleem association gu yëngu ci wàllum mototaxi Sénégal moom moo ko daal di euh, jiite ndax ci Sénégal bu ngeen xoolee région yu bari communes yu baree bari am na ñu fa jiite ay association association yi yëpp nag boo ko boolee mooy union nationale euh, association yi yëngatu ci wàllu moto taxi moo ko jiite waaye tamit moo jiite association bi ëmb ñuy dawal moto taxi ci euh, commune bu Ziguinchor wala région bu Ziguinchor euh, Ansoumana Badji région bu Ziguinchor région bu Ziguinchor mhm. d'accord léegi Ansoumana Badji ñoo ngi lay nuyu waaw ñoo ngi lay fay Abdou Khadre di la gërëm di la sant di la jaajëfal parce que wax dëgg yàlla ñu ngi gërëm sa engagement bi nga am ci euh, développement li nga xamante ni ñuy dawal Jakarta donc loolu ñu ngi la ci saluer bu baax a baax a baax jafe na ñi nga xamante ni ñu ngi gestu di xool nan ñuy suñuy jafe-jafe mais à chaque fois bu amee benn problème d'actualité rek dang ñuy da ñuy woo euh, demande na suñu xalaat loolu ñu ngi la ciy gërëm di gërëm waa Rewmi FM. jërëjëf euh, a Badji léegi yow bala ñuy ñëw ci yéen moto moto taxi yi. waaw yéen nag kii lañ leen di woowee Euh, cag-cag ak. Mm-hmm. ak euh, waaw xeetu cag-cag daal yooyu genre yooyu. waaw xeetu cag-cag ñu ngi koy faral di wax ci gars yi nekk dakaar waaye ba tey ah. yëpp benn la deux roues la. <laughs> d'accord euh, mais yéen. Mm-hmm. mais yéen tey liir naa benn journal nee na. Mm-hmm. ñi nga xam ne ñooy dawal cag-cag yi. waaw. jakarta yi maan yi. waaw waaw moo baa ngi noonu moo baa ngi doog di ñëw. Euh, ñii dawal Jakarta lañ leen faral di woowee xam naa moto bi moto bi moto Jakarta dafa nekk moto bu njëkk a dawal ci wàllu xam naa ne. waaw moom la waaw. waaw léegi léegi yéen euh, grève bi yéen nu ngeen ko gisee yéen bëgg ngeen grève bi arrêté wala bëggu leen mu arrêté ndax nee ñu seen bambang ciment si yéen. <laughs> waaw waaw waaw c'est de c'est guerre parce que d'habitude dañuy faral di wax ni euh, bul xeeblu nit ki ci lu mu nekk ak lu mu doon. Mhm. Euh, transporteurs yi dëgg la dañuy faral di wooye transport irrégulier ñu fàtte amoon na benn décret bi nga xamante ni euh, décret quatre vingt neuf zéro trois bu vingt cinq octobre deux mille douze buy réglementer euh, la le transport des deux roues ñoom bu ñuy nekk ci kuréel bi te fonkuñu wala boolewuñu ci seen biir bu ñu amee problème bu mel nii pour ñu boole ñu ci dina xaw a jafe pour ñu jàpp ci dina xaw a jafe néew ma duñ jàpp mais pour ñu jàpp ci dina euh, je vais m'expliquer ñoom seen point de revendication yi booy xoolee euh, benn pàcc rek moo laal jakarta yi bu nga xamante ni wax dëgg yàlla dafa impacté direct si ñun mooy carburant bi mais au-delà de ça daw guddi bi euh, porte bagage yi visite technique yi ak yeneen ak yeneen yu fa nekk. pratiquement ça ne nous concerne pas ñun lu ñu concerne ci décret yi mooy lu ñu impacté wu mooy essence bi ak waaw mais mais Ansoumana waaw tey yéen impliqué woo yow euh, ni mu leen déggee mooy transporteurs yi ñoom implique implique maanaam yéen amul benn considération bu ñu leen joxoon benn avant dañ leen dañu jàpp ne yéen warul leen a daw uh-huh. euh, euh, mais est-ce que transporteurs yi yor seen oto est-ce que mos ngaa dégg ñoom ñu kaasal borom moto taxi yi mosul am lu dul ngaañ ñi borom moto ñaak taxi yi. Ah, ñoom leen plaider ci ministère bi. ah kaasalu ñu de. Ah. kaasalu ñu waaw déedéet. léegi seen grève bi nag ñu yëguluñ leen ko. non yëgaluñu ko ñun officiellement yëgaluñu ko niñ ko déggee dañ ko dégg comme yéen à travers la presse déggee ko fa noonu mais yëgaluñu ko wootewuñu te xam nañu ni euh, dawalkatu Jakarta yi léegi am nañu doole ci Sénégal doole bi nga xamante ni tey bu ñu bëggoon seen grève bi am am euh, impact. ñu ci boole moto yi parce que ma jël kaaw fii Ziguinchor bi nga xamante mooy sama zone sama zone euh, bi ma nekk euh, gars yi ngi voyagé ak moto yi du ñu yóbbu bagage yu bëri mais moto yi ñoo nekk di yóbbu gars yi fu nekk. Mhm. donc dafa ni transport bi grève bu ñuy def nii amul impact. dëgg la lu ñu fay non non bu dee Dakar sax am na yeneen moto taxi yoo xam ne dañuy yeb ay bagage moto yu xaw ye mag yooyu am trois pneus. waaw yu xaw ye mag voilà gis nga donc loolu loolu la ko waral ñoom la lépp ci ñoom la jógee. parce que boo amee lu mel nii euh, da ngay ñëw courtiser leen bokk boole ko ci sa njaboot. waaw mm, bu ko defoon wax dëgg yàlla tey bu ñu waxee ah Ansoumana Badji dina jóg ci Sénégal ne sama gars yi ah ku nekk na nga gaare. jiiru mm. temps ñu mën a xam. mais loolu nga amul waxtaan boobu amagul ba léegi amagul. ah ba léegi daal ñoom ñoo ngi woy di leen beddi te yéen am ngeen. ñu doole bi nga xamante ne mën nañ demal suñu bopp te ñu ngi demal suñu bopp. Ah, waaw kon yéen kon yéen bëggu leen grève bi jeex. ah ñun de ñu ngi demal suñu bopp góoroxuma na xam ni góoroxuma na xam ni ah, dawalkati jakarta yi mën nañu demal seen bopp. Mhm. ñoom bu ñu boolewul seen biir ñun xam nañu ñu ku ñu doon te am nañu doole bi nga xamante ni ah, suñu bëggoon seen grève bi seen grève bi réussir dinañ ñu boole ci seen seen biir boole ci waxtaan yi. mais ñoom lan mooy seen problème ak yéen lan moo tax ñu leen di boot di. concurrence bi kese. concurrence bi stabilité bi rapidité bi. Mm-hmm. waaw certes ñun mënuñu jógee Ziguinchor dem ba Dakar ñu ko mais <laughs> mu dañ jógee Ziguinchor dem bi ñoo na rapidement jeex na mm-hmm. boo xoolee taximaan yi tamit euh, mm-hmm. seen chiffre d'affaires dafa wàññeeku parce que ñu bëri yi nga xamante ni da nga doon arrêté taxi ne zone bi laa bëgg a dem mu ne la du ma fa dem léegi da ngay taxaw Jakarta mu nga ne la mu ne la trois cent acca yéegal ñu dem fii trois cent la waaw yomb na lool dëgg la de waaw mais mais mais mais yéen euh, carburant bi ban problème ngeen ci am waaw kooku nag wax dëgg yàlla nag démb rek maa ngi ko amoon benn rencontre euh, bu ñu doon def avec euh, suñu maire bi ma jot ko ci wax parce que métti na carburant bi yokk nañ ko ñaari yoon te ñu yokkuñu paas donc trois cent yi la ñu nekk carburant bi léegi presque litre bi mille franc la neuf cent quatre-vingt-dix franc pour nga jënd ko euh, métti na moto yi bëri nañ trop boo ci boolee carburant bu bu bu bu bu bu nga xamante ne prix bi jéggi na dayo waaw affaire yi moom wax dëgg yàlla moom métti na ci ñun président bi dafa war a xoolaat bu baax a baax a baax a na ci ñun de côté boobu moom wax dëgg yàlla gaa yaa ngi ci jooy ñu ngi ci jooy dëgg dëgg dëgg sax. ci côté carburant bi. ci côté carburant bi moom laa moom waaw. mais carburant bi lañ si yokk te lañ si yokk cent franc. cent franc lañ ci yokk mais yokkoon nañ ci cent franc weer yële paase. ok. te la laal ñoon waal bi boobu carburant bi di essence bi rek lañu yokk. waaw d' accord léegi léegi Ansoumana Badji yow yaa jiite euh, mbootaay gi ëmb mboolem association si senegal ci wàllum moto taxi léegi nag yéen transporteurs yi ñoom góor xumaak seen ñoom nee na yéen waru leen a def transport léegi du ngeen jéem a fexe nag ngeen jéem a légal. mais pratiquement légal nañu lu ñu defee rek mooy problème problème euh, problème identification bi problème identification bi beneen problème moo posé c' moto yi nga xamante ni moto yu nga xamante ni seen durée de vie yàggul. yàggul loolu mooy ci encore beneen facteur donc lu ñu mën a def rek lu ñuy ñaan euh, nguur gi mooy qu'ensemble ñëpp réfléchir ci ban type de moto mooy mooy euh, moo ëpp sécurité ëpp kaaraange ñu mën ko implanter partout dans le Sénégal nga xamante ni type de moto yooyu bu ñu ñëwee dinañu mën a xam naka lañ koy defee pour identification bi tout ça pour aspect yi nga xamante ni ñun war nañ ci mën a dugg bénéficier wu ci ñu mën ci am mooy cadre assurance bi assurance d'accident du chauffeur et du, client ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ni privilège bi war nañ ko mën a am. mais yéen est-ce que yéen dagg assurance. ah boo jëlee boo jëlee ci ci cent ah presque ay benn wala ñaar ñoo ci dagg de suma juumul. ah lu tax loolu parce yi ñooy bañ parce que nee nañu accident yi day bëri. te loolu c'est un faux c'est un faux débat. ah mais mais mais yéen da bëgg assurance kay ñu ñu war est-ce que war nañ leen a jox assurance aussi. mais man man personnellement waxtaan na ak ay kilifa assurance yu bëri dañuy dem ba ci biir ñu rocceeku da ngay waxtaan ak ñoom wax leen ñu dem ba ci biir ñu rocceeku ay assurance yu waroon jógee Dakar ñoom fii liggéey ak suñu association bi dañuy dem ba ci biir ñu rocceeku damay bañ a tudd rek. léegi léegi léegi an ministre des sports moom euh, ndax gis ngeen ne am na taxawaay ci moto taxi yi ban am na si programme maam je veux dire. Euh, ministre du transformation fay nga bëgg a war a wax mooy euh, ba léegi euh, sentir guñ ko ñun de sentir guñ ko demandé nañu audience bëgg nañ ko rencontrer d'habitude directeur de directeur de cabinet am dafay rencontrer gars yi boobu nekk gu ma président national bi mais bi ma nekkee fraîchement président national je sais que dinañu jël démarche yu ko war pour mën ko rencontrer parce que doo tax di ne ministre bi rencontrer ñu rencontre déedéet on va aller vers lui et ñun problème yi ñu am ñu teg ko ci table bi mu xool naka lañ koy saafaraay bëgguñu intermédiaire ñun ak moom tête à tête face to face la bëgg. Mhm. waaw kon yéen daal gis ngeen ne mais est-ce que tey euh, dina yomb ñu régler secteur boobu. Ah, dina yomb du yomb dina yomb bu fekkee ni jël nañu les vrais acteurs ñu toog ak ñoom sur la table euh, dinañu mën a dégager perspective yi euh, joxe suñuy point de vue ñu xool lan mooy ci problème lan lañ ci mën a saafara immédiatement ak li nga xamante ne dina dem à moyen et long terme parce que àdduna noonu lay doxee lépp mënu saafara ci benn fan mais au fur à mesure ñuy waxtaan au fur et à mesure ñuy jël les bonnes décisions dinañu mën a trouver la bonne solution et la bonne démarche pour ñu mën a xam lan mooy tax métier bi nga xamante ni mooy dawal Jakarta nu muy jëmee kanam mais aussi ni ñu koy réglementé je pense que war na mën a nekk man. ci àdduna léegi Ansoumana tey euh, secteur bii ngeen nekk yéen di transport yor ay moto taxi tey lan moo ci euh, cas yi nga xam ne moo gën a jàmp yéen pour ngeen régler ko. waaw cas yu gën a jàmp mooy cas yi nga xamante ni mais la cas pour formaliser la formation l' il faut mu am un nouveau type de chauffeur. su ma ne un nouveau type de chauffeur nag que il faut ñuy càmbar kan mooy dawal kan moo nekk ci métier bi mooy lu gën a urgent man su ma sañoon tey euh, balaa nit di dawal mu mën a am au moins les rudimentaires code de la route loolu mooy lu gën a urgent loolu bu ko ko nekk xamee rek mooy base bi je pense que lu lu lu ciy topp yomb na dina dina yomb ay waxtaan la ay comme ni nga koy defee ay émission la de sensibilisation la ay tey débat ñu dem toog waxtaan ak ñoom ci seen i arrêt ci seen i kër seen i koñ lu ci des mooy l'aspect psychologique nga xamante ni un travail psychologique lañ ci war a dem après ñu mën a am euh, un type de jakartaman bi nga xamante ne mentalement day fort xam li ko war ci loi bi xam li ko war ci moom digganteem ak client bi xam li ko war moom digganteem ak société bi loolu bu ñu ko amee rek day day day. est-ce que yi jàppoo ne mënoon nañoo copier comme ni ñuy doxalee taxi yi xam ne da ngay am licence pour doog a def transport beneen bi taxi yi dañoo am couleur euh, est-ce que tey bu ba pare am nañu ay numéro xam ne tey am na numéro boo xam ne boo ko dugaloon ci taxi da nga xam ne kii moo ko moom kii moo ko moom est-ce que amul identification boobu. mais waruloon maanaam ci moto Jakarta yi. mais moom lay wax noonu. moom lay wax noonu je suis parfaitement d'accord Abdou Khadre ci li nga wax noonu loolu moo ñuy moo ñuy ñun sax moo ñuy sécuriser. suñu sécurité boo gisee des fois ñu ñi ñi dañuy daw parce que amul benn sécurité amul benn identification tey nit mën na la yàpp nga fàtte fa dara wala mu jël sa dara doo xam doo ko gisati hmm. ba ci moto yi ba ci moto yi parce que moto dinañ ko sàcc Ziguinchor dem dawale ko Kaolack hmm. ñu sàcc moto Kaolack ñu jaay ko Ziguinchor hmm. muy daw Ziguinchor légalement mais est-ce que nga ko def ci oto parce que oto yi am na ay ay immatriculation donc problème d'immatriculation d'identification de la moto l'immatriculation de la moto et l'identification du chauffeur dafa war pour sécuriser suñu métier loolu c'est indéniable dañ ko war a def suñu bëggee wax dëgg yàlla ñëpp jox ñu cër il faut ñu nangu ñu identifier ñu man a Badji sama moto mooy tàngam-tàngam man maay chauffeur numéro tàngam-tàngam même licence bi ngay wax nii peut-être day xaw a diis ci deux mais buñ ko yombalee mooy attestation bi nga xamante ni boo amul permis war nañu attestation nga def benn formation bu bu bu dix heures nga xam les rudiments loolu yëpp war na mën a ne. waaw mais yéen dama seetlu ne euh, xale yu bari dañu nekk ci secteur boobu ba pare euh, nguur gi noppi ci ndax Dakar gii rek rond boo dem. fekk fa ay jalu xale yoo xam ne ñoo ngi toog ci seen i ñoo ngi toog ci seen i moto te ay xale lañ état bi romb di leen di seetaan est-ce que yoon la ngay romb ay jeunes ñu nekk ci benn affaire jéemoo ko réglementé jéemoo waxtaan ak ñoom jéemoo ci indi solution. ah alhamdulilah bi nga ne état bi mu ngi leen di romb di leen di xool je pense que loolu ici ku nekk war nga jël sa responsabilité ñun ci euh, émission yi ñuy invité chaque fois dañ koy wax euh, dañuy faral dem sax ci école yi. Euh, di jël ay photo accidenté ñi nga xamante ne Jakarta la. Euh, ñu ñuy amputé ak yooyu ay image yu métti des fois sax da ngay da ngay hésité sax pour woon ko xale yi pour woon leen métier bi yan yan risque ñoo ci nekk métier boo gis nag am na risque mais suñu sañoon euh, développement Sénégal du ci Jakarta seulement mais mais xale yi seen parent aussi dañu war a jël seen responsabilité dugal leen ci métier métier bi nga xamante ni moo leen di gën a jëmale kanam parce que Jakarta dafa bëri risque dafa bëri risque trop. waaw xam nga man fi may waxee. waaw dafa weesu na sax xale yi nga xam ne am na nag xale yoo xam ne xale yu toll si jàng wala dara. waaw moo xam Ansoumana Badji la moo xam Demban la moo xam nangam la bu dee day réew. da nga gis ne am na benn secteur boo xam ne. Uh-huh. ña fa nekk di fa daan seen doole bëri na. waaw da nga war a jéem a xool ñoom seen statut yi nga xool métier boobu. Mm-hmm. ndax tolluwaayu nit ña fay nekk. waaw wala ñu koy jëfandikoo dafa am lu ñu lay imposer. Uh-huh. léegi loolu laa ne dañu gis ne ñi dawal Jakarta ci Sénégal bëri nañu euh, état bi xam na ne ay junni junni la waaw euh, maanaam lan la ñuy xaar ci regle secteur boobu euh, même bu doon tey dafay am benn bànqaas buñ ko dénk ci ministère de transports sax ñu xam ne moom la ñu ko moom la ñu ko dénk mooy yoon dafa war a mën a am benn bànqaas bu ko war a dénk ci ministère des transports bi nga xamante ni mooy mooy jàppale deux roues yi moo war a nekk suñu interlocuteur immédiat Euh, état bi tam dafa war a jël responsabilité am accompagnement xam nga boo gisee ba tey nangul wax euh, Jakarta buñ ko commencé dawal dafa régler benn problème mooy problème chômage bi mu doon benn problème bi nga xamante ne état bi demoon na ba jaaxle agression yi bëri na xale yi tax taxawaalu bi bëri na xamatu nu ñuy def bu euh, bu ñu réglementé moto de rue yi ba léegi au moins am na benn ouf de soulagement boo xoolee jotaay yu bëri yu ñu doon gis ci koñ yi ak yooyu pratiquement wàññeeku na tax taxawaalu bi wàññeeku na dem plage bi ak yooyu yëpp pratiquement wàññeeku na parce que ñu bëri mais Jakarta dafa dem au delà de ça parce que damay bañ ñu ngi ci rajo damay bañ dem dugg yenn détails fii ci Casamance euh, mais lu mu réglé dafa bëri réglé na lu bëree bëri bëri bëri. Hmm. mais mais tamit lu muy lu muy gaañ dafa bëri tam il faut oser le dire du question ko maa ngi ci biir ba du ñu wax li nga xamante ni dañ ko war a dañ ko war a déplorer mooy ñu ñu ñuy rax ci suñu biir di def li nga xamante ni métier bi laaju ko. comme lan comme lan. ah non. <laughs> comme agression agré da ngeen agressé dafa ma agresseur. déedéet dama dafa am ñi nga xamante ni ñu ngi dawal Jakarta. du ñu ay chauffeuru Jakarta. ah ay rax ñu di def ni nga xamante ne du yoon. waaw mais xam nga rax moom. xam nga rax boo xoolee euh, euh, yeneen transporteurs yi sax taxi sax dañ leen di rax. waaw ndax kum neex nga dem euh, jënd sa taxi def ko la zone noire di def si def si li la neex. waaw léegi tamit loolu euh, dafa moto jàkkaat moto yi moom bu identification amul doo xam kii mooy mooy def moto taxi euh, xamoo kii mooy agresseur bi. waaw foofu laay waxee ndax séparation man pour pour man séparation dafa war a am. comme ni nga gisee ne oto bii. Euh, mhm. Njaga Njaay la oto bi clando oto bi car rapide la oto bi bisla oto bii bis afti la oto bii taxi la mhm. noonu identification waroon boo gisee moto bi nga xam ne moto bii. cag-cag la moom livraison rek lay def moto bi mooy def moto taxi maanaam genre euh, dawal di yeb ay client euh, moto bi mooy ki nga xam ne dafa am motoom war see dox ay soxlaam war a buy liggéey war koo war ñu def identification trois moto yu bokkul yooyu waaw loolu c'est une solution bu ñu la tey Jakarta bi moom rek mooy def transport beneen type de moto du ko def. xam na la problème. Euh, di nga gis nit yëpp ko mu ne non man du ma Jakarta particulier la. Mm-hmm. mais bu ñu nee état bi jógee tey mu ne léegi képp ku bëgg def transport deux moto bi rek la ñu jox autorisation mu def ko beneen type de moto du ko def. xam nga ni loolu rek la bi. te te boobaa tamit bu la ah. te boobaa tamit bu la état waxee na la yow yaa am sañ-sañ euh, def transport yow moto bi. dina wuute ak ki nga xam ne moom. dafa yor moto ndax yéen dina am lu ngeen di dagg au moins lu ngeen dugal ci ci ci keesu gafa ga réew mi mais ñu ngi dugal ci keesu gafa gafa gi dem ba lañ ci doon wax. mais li ngeen dugal nag bëriwul nag. ndaa ñun de 3000 par mois la ça fait 36000 ah. par mois boo ko jëlee ci 10 000 personnes ñaata million la. ah waaw 3 3000 kese 3000 par mois nag bari nag. mais am na ñuy dagg potente 20000 par année. ah waaw waaw mais muy 400 et quelque. ah. ah waaw d' accord mais yow même Badji euh, dinañu dil si waat si union nationale euh, des associations de moto taxi du Sénégal mais yow yaa jiite kuréel gi ëmb ñuy dawal moto càq-càq ci commune bu Ziguinchor. waaw ci région bu Ziguinchor. région bu commune bu Ziguinchor. waaw Ziguinchor bi Ousmane Sonko nekk seen maire. waaw ban ban yéen lan mooy seen relation wala si partenariat bu dox seen digganteeg euh, mairie boobu. ah bu mu faloo ba tey démb la ñu soog a jàkkaarloo. ak Ousmane Sonko. depuis un an. ñu ngi soog a jàkkaarloo démb. ñu ngi soog a taxaw wax ak moom. Euh, wax ko lan mooy suñu mbébét. lan mooy suñu jàngoro. ah démb je pense que li ma waroon wax lépp ci lu ñu métti wax naa ko ko. Mhm. waaw parce que yóbbal la. nit nag bu ñu jiitee. nga nekk ci euh, benn association. waaw euh, xale yëpp ne la lii moo ñu métti ci suñu maire bi. waaw lii moo ñu métti ci doxalin bi. lii ak lii ak lii lii lañu bëgg. je pense que boo jàkkaarloo ak moom boo wax wax naa fekk nga. mais yéen yan proposition ngeen ko ngeen ko tegal. déjà déjà dañu doon waxtaan ci ñaxtu yi ci li nga xamante ni mooy nu ñuy collaboration bi parce que booy xool bépp dawalkatu moto sa premier collaborateur mooy sa maire normalement moom noonu la war a demee. donc man je sais que il a d'autres préoccupations et que dafa jàpp ba mu ëpp euh, mais lu ñu ci war ñun ci commune bi ñu ngi koy def mu ngi fay suñuy taxe communale ñu ngi koy def. ñaata ñaata ñaata ñaata moto moo nekk foofu yu yu euh, yoo xam ñuy fay. par estimation ñuy fay ah Demba Péer wax na ma mais xam nga rek mbirum commune la. aw d'accord bul wax loolu mais ñaata moto nga jàpp <laughs> mais ñaata moto nga jàpp ne ñooy daw yu légal. bon luy daw mën naa koo jàpp à peu près on est plus de dix mille yuy daw. mais yi ñuy fay est-ce que ñuy fay ñaata jàpp ne moom lañ toll. bon moom moom wax dëgg yàlla mënuma ci avancer parce que ci côté boobu moom kii bi ñoo ko moom waa waa taxi waa kii perception municipale ñoo koy ñooy gérer lool. d' accord léegi mais ci chiffre ñuy wax mais. waaw d' accord léegi Ange Marie Bart yéen commune bu Ziguinchor. yéen a ngi maanaam 3000 yi mooy chaque jour 100 francs chaque jour 100 francs waaw laa wax sànq nee la chaque jour 100 francs nag dafa tuuti nag Ange Marie Bart xanaa bëggu leen ah mais même même bu doon tey euh, dix mille euh, mais cent franc nag wax dëgg yàlla Ansoumana Badji. dafa bëri sax cent franc yi dafa bëri. cent franc dafa non man man cent franc dafa tuuti. mënoon ngeen ko dafa war a def chaque jour cinquante franc. non non non chaque jour cinq cent franc baaxoon na. <laughs> chaque jour cinquante franc muy mille cinq cent franc le mois. non mille cinq cent dafa tuuti trop. ci ci ci mais mille cinq cent ci sur pratiquement plus de dix mille personnes nga ne dafa tuuti. da mais xanaa bëggu leen a jaar ci ay tali yu baax. rapidement vite fait waaw yan tali yu baax. yan tali yu baax ñoo fi ne. yan tali yu baax la ñuy defar ñu gis Ansoumana euh, Ansoumana dama ne. ñu nit non déglu ma déglu ma Abdou Khadre. waaw gis nga marché ñi fay juuti. dañuy dem ñu balal leen seen marché defar leen cantine yu baax am nañu confort ci ci lu ñu nekk. ñun suñu mbaar abri provisoire yi ñun ñoo koy defar suñu bopp. ñun ñooy baleel suñu bopp. ñun ñooy utal suñu bopp lépp li nga xamante ni am na au minimum de confort. waaw Ansoumana. Ah, ah. xam nga commerçant yooyu nga wax noonu ak marché ñoo ñu nekk ci marché yi. waaw ñoom itam la ñuy fay. waaw dafa tuuti. Ah, la ñuy fay dama ñoom moom ñoom sax ñoo gën a yées la la fay même waxuma la Ziguinchor kese mais Sénégal gi yëpp. ndax dafay am loo xamante ni kenn ku nekk war na see mën a war na see mën a participer mais booy participer aussi xaalis booy natt la ndax ndax ni yéen tey comme par exemple tey yéen warutee na leen a am ay ga ay ay arrêt yoo xam ne abri provisoire la doon war ngeen am ay arrêt yu normal mm-hmm. war nañoo am mm-hmm. lu ñu leen di jàppale euh, même que si yàlla def nga def soog am na loo xam ne mairie bi war na koo ñëw pour jàppale la man de waxuma ko yaa ko wax waaw loolu laa lay wax mais nag boo dee nag ay cent franc cent franc lu man nag bat si mais da ngay da ngay comparer booy ne cent franc dafa bëri su ma ko ne dafa am fu wóor fu ma ko teg parce que ci li ngay gagné la premièrement il faut tamit ñu xalaatee ko foofu boo ko xalaatee ci cent franc bi da ngay juum. Mhm. parce que nit ki dina xëy est-ce que am na deux mille ci balaa journée bi di jeex deux mille yooyu ci yi muy am ñaata la ci jënd ci essence essence bi litre bi mille franc la mu war a ci jënd añ mu war ci jënd ndekki war ci reer. Mhm. c'est des facteurs yi nga xamante ni ñu bëri dañ koy réeree mbir commerçant bi muy nekk marché ci d'affaires am ñaata la ñun on gagne pas dix mille par jour. commerçant yeeg restaurant yeeg ñëpp a war a fay. ñoom waaw ñoom seen chiffre d'affaires moo élevé ñoom dañuy dem ba ay millions par jour. ñooñu laax dama ne la ñu xam ngeen cent mais ñële moom la ñu war a fay kenn ko natt. d'accord ñu ngi ñu ngi fay vingt mille francs par année. waaw vingt mille vingt mille par année. d'accord léegi ñun ñu fay trente mais en ce moment waaw euh, mais mais yow tey par exemple tey est-ce que tamit yow yaa ngi gëstu. comme yow euh. yaa jiite euh, kuréel gi ëmb association yi ci Sénégal. ndax yaa ngi gëstu yeneen communes yi comme par exemple tey mm. mairie bu Kaolack. waaw euh, mairie bu Thiès. Euh, mm-hmm. mairie bu Fatick. waaw euh, ña fay dawal Jakarta. ak mm-hmm. mairie ba lan mooy seen relation ndax yu mel noonu yéen a ngi si faral di waxtaan. man de personnellement je te dis c'est pas pour parce que rajo la ñu nekk émission lañ nekk moo tax mu wax. suñu groupe WhatsApp bu ñu démarré on a démarré ça parce que dama ne mooy sama feuille de route balaa may def tournée bi. il faut que d'abord nga mën a am une idée de chaque localité lan mooy seen seen jafe-jafe yan ñooy seen rapport ak seen autorité du mairie rek parce que mairie yomb na mais lu gën a métti mooy rapport entre les les les forces de défense et de sécurité ak ñoom d'habitude du seen collaboration du mot te ma première mission déjà déjà mooy que rataxal diggante yëpp diggante ak mairie diggante police ak diggante ak gendarmerie ak diggante ak douane ñooñ la ñu am benn benn benn rapport de conflictuel te loolu i faut ñu régler ko buñ ko mhm. rek dinañu am benn équilibre social te man loolu mooy sama aspiration mooy sama politique mhm. d' accord euh, jërëjëf Assoumana euh, Assoumana euh, Badji léegi tamit lu jëm ci wàllum ñi nga xam ne ñoo nekk ci tali bi di takk der yi ndax amu leen diggante boo xam ne bu ñagas la ah fii di ci Ziguinchor fii ci Ziguinchor Euh, depuis ci période bu fi euh, le commissaire central Adrame Sarr nekkee la ñu commencé gis benn rapport bu bu extraordinaire euh, il a été le premier bi nga xamante ni moo am benn approche bi nga xamante ni day ànd ak man ñu dem toog ci arrêt yi waxtaan ak booy des civils ñu dem toog waxtaan ak ñoom mu xam seen jafe-jafe ki nga xamante ni moo ko wuutu di le commissaire Ibrahima Diallo maa ngi koy gërëm di ko centre central bi moom it mu nekk un un un commissaire vraiment très attentionné. parce que bépp problème bu am daf may woo demandé ma euh, ñu waxtaan ci saafara ko ci nu mu gënee même yenn problème yi booy di am bu ñu demee police sax dañuy waxtaan loolu laa bëgg bépp président bu nekk euh, buy jiite association na jege ci police am jege ci gendarmerie am loolu mooy tax bu ëllëgee problème yi dinañ ko mën a régler à l'amiable loolu mooy yoon bépp commissaire na wàcc sur le terrain mu xool jafe-jafe yu dawalkatu jakartaay di dund ci seen liggéey parce que boo toogee sa bureau dañ lay waxtaan rek ay rapport lañ lay jox. mais boo demee sur le terrain moom ngay ah. mën a. am mais mais Mansour Faye aussi ministre bi benn euh, avant ñuy euh, régler lépp ba muy jaar yoon est-ce que instant bi wartoon na def ay tournée de sensibilisation ndax gis nañ ne moto taxi bi ñuy joxe ci fond Covid bi sax gis dégg naa président tudd leen est-ce que jërutoon ay tournée sensibilisation ministère bi. mais Mansour pour nga gis bi moom pour nga gis ah moo ñu njabootee. mais yéen itam defu leen benn jéego pour dénoncer loolu aussi <laughs> est ce que def ngeen benn jéego pour dénoncer ko. il faut ngeen dénoncer ko. Euh, ngeen dénoncer ko Badji. dama ne bi may jël association bi yàggul le sept le sept janvier bii la. donc ñu ngi ci formalité yi def nañ si assemblée générale ñu ngi dugal pour récépissé yi ak yooyu noonu euh, effectivement euh, defaguma benn action ci qui que ce soit ou bien si quoi que ce soit donc li may ñaan rek bu samay këyit pare ma am formalité bu normal di ngeen gis beneen changement incha allah ci biir Sénégal. d' accord jërëjëf euh, Asmana Badji ñu lay euh, sant di la gërëm. jërëjëf euh, Abdou Khadre di gërëm di sant bépp auditeur bi nga xamante ne baaxoo na di déglu sa émission di leen di ne macha allah kontaan nañu trop trop trop parce que yéen a ngi jàppale yéen a ngi yóbbu suñu kaddu fu mu ci fu mu war a jëm Abdou Khadre ngàcce ngaalama waa Réew mi FM maa ngi leen di gërëm di leen sant mu doonoon Asmana Badji président. Euh, association Jakartaman Ziguinchor mais aussi président union nationale des associations de mototaxi du Sénégal. jërëjëf jërëjëf euh, Assoumana Badji moo jiite union nationale des associations de mototaxi du Sénégal moom la ñu invité woon tey seen émission petit métier ci rajo Rewmi FM ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf euh, jàmm ak jàmm.